benn dëkk ñaari gaar war a dalal ay ndaanaan yu am am solo dina ci bokk nga xamante ni moom moo di cas cas bu Sénégal jaay cas yu nga xamante ni Sénégal ko bëgg ndax li nga xamante ni mi ngi ciy yëngu fexe ba marqué ci empreinte am fexe na aussi ba Sénégal yëpp ràññee ko ci waaye tamit liggéey bu am solo bi nga xamante ni mi ngi ko ci amal muy le monde cinématographique ba tax na tey nag ma ñëw fi nga xamante ni moom moo di Thiès seet si ko ñu nar a waxtaan waxtaan mu am am solo cas nuyu naa la bàyyi la nga ñëw mbokki internet Dakar Plus lay seetaan bi di la ñaanal réew mi yëpp di nuyu Sénégal ak ci ñëpp tubaari kàlla maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay mhm. di ñaan ci réew mi jàmm ah di la kontaane yaak sama waa ji nga àndal mhm. maa ngi lay bëgg bu baax a baax merci beaucoup jaajëf merci alors am na solo Thiass comme ni ñu ko waxee rek euh, Thiass nekk koo xamante ni foog naa Sénégal yi dootuñu ko laajte te wante dafay baax bu ñu jàkkaarloog yow euh, nga gën a présenter sa bopp gën a ba Sénégal yi gën a xam kan mooy Thiass waaw man de daanaka ni may présenté sama bopp comme mooy cas mu xeebu mi rek la cas mi nga xamante ni daanaka maa ngi ci côté bi bi bi réew mi bëgg comme stress daa bëri ci réew mi <laughs> waaw waaw cas miy dindi stress rek donc mm-hmm. cas bu Sénégal mm-hmm. euh, loolu laa mën a présenté woo boo xoolee cas moom lu ndaw la ci biir li nga xamante ni moo di moo di monde bi donc maa ngi présenté wu di wax ni daal maa ngi nuyu àdduna di la nuyu di kontaan waaw mm-hmm. ah, sama xool sedd na ci maanaam ñëw bi ngeen fi ñëw macha allah am moom mooy cas dëggantaan daal wala cas turu la boo xam ne turu artiste la yëkkati micro bi tuuti pour cas waaw waaw waaw cas bi moom mooy surnom la rek mais ah. sama tur dëgg moom dama koy jaay xam nga ah, mais ma ko man am naa njëgam loo wax ne ma moom boo ci dugg mhm. il faut nga am surnom bu yàlla dogalee nga am ci tur yi sell yi mhm. donc dangay am surnom boo xamante ni moom ngay moom ngay dugal waaw réew mi nag jël cas mhm. daanaka réew mi moom bari naa ci ay tur léegi moom tur yu pileeg yëpp a ngi fi daal kenn xamul yëpp a ngi fi ay daam ak yëpp a ngi ci biir waaw ci bete bete waaw tur yu bari moom xam nga film yi ñoo lay jox ay tur donc moo tax surnom yu bëri ñu ci bëri ci artistes yi tudd ñu noonu mais tur yi lay jox day dem ba moom ngay adapté moom ngay mujjee jël dëgg na yaxul d'accord alors Thiass fan la juddoo fan la yaroo genre waaw Thiass nag mu ngi juddoo Thiès màggee Thiès yaroo Thiès donc débuté Thiès. Mhm. waaw Thiès bu Thiès daal. parce que boo xoolee waaw dëgg-dëgg Thiès laa juddoo fi laa defee lépp. Mhm. waaw Thiès laa juddoo fi laa yaroo fi laa defee sama lépp. wax dëgg fa yàlla waaw nitu Thiès laa. nitu Thiès nga waaw ah nitu Thiès amul lu ñu jox de. non non nitu Thiès laa nitu Thiès laa man naa ngi ci biir sax naa ci sax. <laughs> d' accord nitu Thiès laa. <laughs> alors li nga xamante ni moom moo di sa tolluwaay si jàng bi maanaam niveau d' étude bi fan la yam. ci jàng. waaw waaw man nag alxuraan laa jàng. français bi man damay sob di dóor ay affaire rek. Mhm. mais man moom ci daara ji laa jaar. Mm-hmm. mooy loolu. daara nga def. waaw daara laa def. Mm-hmm. jàng ba fan daara. waaw wàcc na. wàcc nga ñaata yoon. Ah, benn yoon laa wàcc. <laughs> benn yoon nga wàcc. Ah. <laughs> naka la daara ji demee woon. waaw daara moom bari na ay yëf daara moom daanaka. Mhm. maanaam boo ci door a dugg du neex waaye ba demee ba ci biir. Mm. nii nii nii su ma amaatoon daara jël. ah lu tax ah, dafa neex. lan moo si neex boo nga war a delluwaat. Oh, dafa neex parce que boo demee ba toll nii ngay xam ni daara neex na mooy jàng bi ñu nga doon àndal. Mm-hmm. ah donc ànd dem yalwaan yi ànd nekkandoo ensemble soo demee bu fay jugee doo ko bëgg bàyyi. dëgg la waaw da ngay dem ba jàng bi sax day nekk leneen parce que alxuraan moom boo koy fooyee guddeeg bëccëg. loolu day nekk ci yow parce que. boo nee jàng ci daara la baaxoo donc daara ji ñun dootuñu waxati alxuraan yi sax mais da ngay dem ba nekk na ci yow mm-hmm. léegi nag àndandoo beeg famille bi mm-hmm. donc looloo lay manqué waaw donc di ngay dox ci àdduna yenn saa yi koo xam ne yéen a jàngandoo loolu mm-hmm. leneen lay doon nga sa waay ngeen fàttaliku <laughs> d'accord te xam nga daara moom boo boo doonee ndongo daara da ngay bari yoo man quoi da ngay bari yow man bokk na ci yi nga mën comme la ah bari na <laughs> wax ma rek <laughs> ah, léegi laaj boo rombatee nit yi nee ko donga daara la. donga daara li mu mën bëri na donga daara xam nga li mu li mu ëmb comme ni ñu koy waxee dafa dafa bëri ba pare dafa dafa bëri ay affaire yoo xamante ay bêtises yoo xamante donga daara def nañu boo ñu doon wax benn anecdote boo xamante dund nga ko ci daara ji ba tey doo ko fàtte lan la waaw non foofu moom lu ma fa dund ci temps xale moom xam nga xale moom daanaka yaay mën lu ne tànk mhm. taalibe wala dem ci jàngi mhm. maanaam bu fekkoon doon laa jox benn ñam comme par exemple ni ñu ko daan dundee bu ñu mësoon a jox fenn soos dañuy jàdd fenn tóor ko benn soos daal di jël mbaxal teg ci kaw <laughs> soos bi dañ ko daan ber quoi doo leen ko yóbbu si daara yi <laughs> déedéet soos yi am na ci yoo xam doo ko yóbbu ba pare fomp ànd ak ceeb bi ñëw mhm. teg ñoo teg waaw léegi bi lan lay ah, gis loolu rek ñun daanaka am na ci ñam yoo xam sëriñ bi daanul egg ci sëriñ bi sax. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. d'accord ñun moom xam nga faa ay zigzag. Mm-hmm. Ah, waaw <laughs> loolu moom ci ñëpp la sax. waaw ci ñëpp la. mais daara nag lu neex la wax dëgg fa yàlla. parce que dina la jàngal dina la yar. waaw yu bëri ci àdduna dala ciy jàngal ba ni ngay màggee daara dalay tarbiyu ci xale ba ni ngay nekkee mag. da am da am àdduna àdduna la lay jàngal. dëgg la dëgg la. vraiment alors Thiass ban ban genre xale la woon xale boo xam ne dafa turbulent di def ay bêtises wala dafa nekk koo xam ne ko yaru la rek. waaw man moom damaa yaroon temps xale. Ah man mosuma mosuma def ay ay bêtises yooyu noonu. Hmm. waaw man man damaa yaroon. ruube daal laa mës a mën ay tooñ ñii rek maanaam tooñante ci suñu biir ñu ma xaritool mais comme. Mhm. waaw booy tribal yi noonu moom wax dëgg yàlla loolu moom nekkuma ci woon. cas moom ku yaru la ba léegi damaa yaru sax. Mm. waaw ñëpp xam ne damaa yaru. ni moo tax yaa ngi wax ndànk ni yaru ni. damaa yaru nag vraiment noonu nit ku yaru nag ñëpp xam nañ ko. Uh-huh. waaw man loo siggi xool ni da nga bëri kersa. non non kersa moom dama ba fekk ci man man daanu ma xool ni nit mënu ma laa wax nii la mel parce que bu may wax ak nit damay sëgg. Hmm. wallaahi. xale bi nag wala wala soxna si xamoo nu mu mel. kan xale bi wala soxna si. man moom nongo daara la mooy jàngal ba léegi. ah amagoo soxna. amaguma. Hmm. Hmm. amaguma. yaa ngi xool. waaw maa ngi xool fee néeg bi day senn foofu. fan. fi ñuy tëdd day senn foofu ci kaw. lan moo fay senn. moo tax mënagunoo takk soxna day senn ko <laughs> senn kay te takk soxna da ngay <laughs> senn kay ngeen nekkandoo ci yéen ñaar. ah non ba keroog lan leneen fekk la wala. xam nga ko ci kër gi. muy mm. senn du nelaw te xam nga yaa kër baayam dafa doon nelaw nga andi ko fii. Mm. nelawul normal da koy tooñ ko mais mais mais mbëggeel jar na lool wala. ah mbëggeel ah xale yi mbëggeel jarul leen lool de. Ah. ñu fii di taataan ay garangal ñaari pan la ñuy <laughs> d' accord sax dinañ ci ñëwaat mais ñu rek ci li nga xamante ni moom moo di xale euh, nga nekk xale euh, da nga évoluer si sa kanamu yaay ak sa kanamu papa wala da nga nekk koo xamante ni si euh, da doon dund sans sa ay parents. waaw man sama ay parents laa mos nekkal. Hmm. ñoom laa mos a nekkal su maa ngi juddoo ci sama kanamu papa ak sama yaay. macha allah mu yóbbu ma jàngi après ñëwaat nekk ci ñoom ba nii nii foofu laa nekk. ci ñoom hmm, ñoom nga dëkkal. waaw ñoom laa dëkkal. Hmm, alors seen ay relation waaw nice moom wax dëgg fa yàlla parce que man moom sama waajur bu góor laa teel a génn àdduna mais maag sama yaay moom nice ñoo waaw mooy mm. sama xarit mm-hmm. loolu la yàlla dogal sa yaay sa xarit waaw mm. <laughs> <laughs> mooy sama xarit loolu moom ñëpp xam uh-huh. nga ni sa papa dafa teel a génn àdduna mm-hmm. sa yaay rek moom moo fa des mu nekk une mère monoparentale mun nañ ko wax koo xamante ne da nga yar say doom san seen papa mm-hmm. euh, situation boobu naka ngeen ko doon dundee waaw ñun moom boo gisee comme yenn saa yi li ñuy wax rek ku nekk yàlla na la yàlla dimbali nga am yaay jigéen ci yaay yi. moom mm-hmm. boo ko amee. Mm-hmm. doo doo namm dara day mel ni sa lépp a ngi taxaw. ndax maanaam féete nañ ci côté yëpp. Mm-hmm. loolu moo waral manqué wuñu sax bàyyi boo xoolee. dëgg la parce que yaay moom maanaam jar naa tànn daal wax dëgg fa yàlla moo ñu ëmb ci côté yëpp. lépp loo xamante ni dañ ciy dugg waxtaan ceeg moom. mu wax ñu defal lii ñu def ko te itam lu am importance la ci déggal sa waajur mm-hmm. waaw lu am importance la parce que waajur bi la sukk jur mm-hmm. ah tette la ba nga toll ni la toll looy dugg boo ko ci waxee mm-hmm. maanaam nit mënut a jur doomam di ko bañ maanaam ci yoon bu leer la lay teg waaw loolu moom man sant naa ci bu baax a baax vraiment loolu côté boobu moom bëgg naa ci ndax am naa ci am naa ci gis naa ci dara daal. Mhm, waaw. Mhm. d'accord euh, sa papa naka nga yëg li nga xamante ne moom moo di génn àddunaam dafa feebaroon nekk si kër gi walla tamit euh, naka la affaire yi dikkee exactement. waaw waaw sama papa dafa feebaroon quelque temps mhm. après mooy loolu waaw mu feebaroon. feebar na benn temps bu ñu fi nekk ay après yàlla dogal. mu génn àdduna boobu xàmmee nañu xam nañu wax dëgg yàlla. mu nga yàlla moom li gën rek lay def. dëgg la dëgg mais loolu dañ koy dund comme ñëpp ñu koy dundee rek. Mm-hmm. comme mm-hmm. xam nga am na loo xamante ni moom mënul ñàkk si àdduna. ku ci nekk rek lay jox misaal ci sa bopp. Mm-hmm. àdduna moom loolu la. waaw demal maa ngi ñëw bi am loolu boo bu la ko yàlla wanee. nga xam ko xam ni noonu lay doxee. waaw loolu la àdduna doxee daal. alors nekkoon na fi nekkatu fi dem na euh, soit dina la manqué wala sax mu am loo xamante ni doon ngeen ko dund loo xamante ni yaa ngi koy xalaat sa xel di dem ci moom. lan la loolu. waaw mbégte boo loo xam ne sax mbégte la parce que tey moom loolu la amoon pour man ma jàng alxuraan moom ma dugaloon mooy jàng. Mm-hmm. waaw loolu déjà maanaam benn kii la boo xamante ni dañ ci daan waxtaan ci temps bu may gën a nekk xale ma daan jàngi. moo ma ci mm-hmm. daan ñaax moom mu yóbbu ma jàng. Mm-hmm. waaw. mu nekk papa ju ju ju ju ju ju baax joo xamante ni wax dëgg fa yàlla. ku ko ñàkk wëri ko nit ku baax la wax dëgg fa yàlla wallaay. waaw donc loolu moom. manqué lañu foofu parce que tey ku ñaanoon ci àdduna di gisandoo sa famille yëpp sa papa ak sa yaay ni ko ñëpp di gisee. mais nag mm-hmm. yàlla noonu lay noonu lay doxalee ay mbirum. dëgg la waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw sa absence su papa naka la ko sa famille di dundee sa yaay yow sa sa ay rakk wala sa ay mag. naka ah. ngeen di absence bi. waaw comme li ma la wax papa. waaw mm-hmm. comme li ma la wax sànq rek donc gëm yàlla mooy àdduna. boo bëggee noppal ci àdduna rek dangay gëm yàlla mhm. donc loolu du du du kii parce que soo gëmee yàlla yi nit ñi nekk doo ci nekk parce que li mhm. war a am ala kulli àll day am léegi nag li ci des mooy ànd mhm. jéem a nekk si yoon bi nga xamante ni moom lañu fi war a nekk ci li ñu war a nekk daal ñu nekk ci mais loolu loolu dañ koy dund parce que tey nit mënut a génn àdduna nga wax ba mu ñëwaat mënut a nekk léegi nag gëm yàlla googu ñun ci lañu ne Mm-hmm. mooy ñu ngi koy dund comme ni ñu ko war a dundee bu ñu jullee ñaanal ko nekk ak suñu suñu yaay. Mm-hmm. mu ñuy tette dina woon yoon bi ñu war a jaar. Mm-hmm. waaw di ko dund comme ñëpp nu ñu koy dundee rek parce que tey am na ñu gën a métti leen. dëgg la waaw. d'accord alors wax nga ko tout à l'heure sa yaay ku la jige la sa xarit la sa lépp la. du ñàkk dund ngeen lu metti loo xamante ni tey jii euh, nekk na loo xam ne boo sañoon nga faj ko walla sax boo sañoon loolu noonu du am lan la lool. waaw man moom ci sama dund moom comme li may wax rek maanaam mm. sant naa yàlla bu baax. dëgg waaw bi ma sante yàlla mooy. Mm-hmm. yàlla dimbali na ma ba am na lu ma dabu ci sama ci sama waajur pour mu gis ko. Mm-hmm. mooy ku ci nekk ñaan nga yàlla nekk ak sa waajur ba am loo ko defal lu sedd xolam. moom loolu. sant naa ci côté boobu quoi. Mm-hmm. parce que ñàkk koo gis moom mooy jooy gi ba nga naan gisuma nangam mais man sant naa bu baax parce que man moom ay xarit lañu. Mm-hmm. loolu la yàlla dogal lu yenn ci man. dèjà <laughs> mm-hmm. naa ci sant côté boobu moom maa ci sant yàlla bu baax a baax a baax a mais dundoo leen dara lu xaw a metti wala genre lu neex loo xam sax wala yaa ngi koy fàttaliku wala dara. waaw non sama yaay. anecdote tey moom daal bis bu ne <laughs> ñuy dund àjjana moom. <laughs> sama yaay sama xarit la bis bu ne dañuy dund bànneex. kooku moom ah, ah, ah. wax dëgg fa yàlla chaque jour ma moom dañuy dund àjjana moom. waaw. Mhm. ma man moom la ma yàlla jagleel sama xarit la mhm. man la koy wax léegi. Mhm. waaw loolu moom wax dëgg fa yàlla ci côté boobu moom chaque jour que bu ma yeewoo dinañ dund àjjana ndax saa yu bu ma yeewoo ci kàttanu yàlla dinaa ko gis. ñu ngi ko gis waaw d' accord alors am na solo mu nekk lu am solo li nga xamante ni moom moo di théâtre bi euh, dañu jékki-jékki gis cas mu nekk ci kaw fan nga commencé théâtre ak kan moo la jàngal wala dafa nekk don boo xamante dafa nekk si yow. waaw théâtre bi moom déjà am naa ni comme li may wax rek ci temps wu xale. Mhm. boobu ci temps xale boobu maa ngi ci di doon mbalak xam nga ma dama bëgg yàgg bëgg ay tooñ ak yooyu noonu. lu mhm. nekkoon ci man la am naa don bi yàlla dogal na nag am naa ñu mu accompagner. Mhm. waaw daan naa dem di defi répétition di dem fi ñuy théâtre di jàngi di xool. donc ba nekk ci troupe bi ma nekkee ci troupe après dem di def répété ak ñoom. Mhm. commencé ñu dugal ci seen ay répétition ñuy jàng. Mhm. parce que nit ki loo bëgg rek dalay fekk si mais art moom déjà day nekk donc ci nit ki. dëgg saa nit mën nga am donc kese mais da ngay dem xool yi. Mhm. jéem a jàng xoolaale li nga xamante ni moo koy moo koy doxal. moo koy doxal waaw donc dem nañ ci yenn yenn arco yeeg yooyu. pour xool fa ni ñuy jàngee jéem a xool ba xam lan mooy théâtre mais mën nga neex rek mais neex kese. neex kese mun naa bañ a tax nga egg fi nga bëgg a egg. Mm-hmm. te dafa am jàng dafa am ay dafa am ay kale daal ci biir. dafa am ay kale théâtre nii kese daal. <laughs> Eh, eh. théâtre du théâtre nii kese. Eh. di nga gis di nga dox yenn saa gis benn nit mun la man dama bëgg a théâtre ak maa neex suñu gars yi maa leen di daj. Mm-hmm. waaw loolu neex kese la mais mun na neex de mais après théâtre bi dafa am ci biir jàng la. Mm-hmm. dañ koy jàng. dañ koy jàng waaw dañ koy jàng fii nga débuté Thiès. waaw Thiès laa débuté. ci ti ci maanaam ci loxoy kan kan moo la formé. waaw man bi may débuté fii maa ngi jaar ci tonton Seex ak Sayar Dieng ñu ngi daan répété ci fii nii Daaru Salaam benn koñ bu ne fii fi lañ daan répété ci ñoom laa jaar. Mhm. par la suite après ma nekkoon ci Seex kii Seex Fejoor. Mhm. donc fii dafa bari woon ay troupe yoo xamante ne nii. Mhm. ay troupe théâtre la ñun ba ñu dem ba formé ñun troupe boo xamante ni dañ cee yoroon ay éléments di leen jàngal. mais fii laa débuté ci Seex Saar ñu naan Seex Saar ak Sayar Dieng. boobu mm-hmm. daal salaam fii laa nekkoon ak ñoom. bu ñu waxee cees dañuy wax li nga xamante ne moom moo di talent surtout surtout nag jëm ci li nga xamante ne moom moo di wàllu théâtre ak ñoomin seen euh, am na yenn relation nga am ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di talent ñi nga xamante ne am nañu talent te di ci dëkk bi di évoluer sa mbokk comédien yi ci dëkk bi. waaw am na ci am na ci am na ci ñoo xamante ni ñu ngi demalente wala donc ñu ngi gisee ci ay palaato mm-hmm. waaw di daje di waxtaan parce que ñun am man de boog awma kii boobu noonu parce que artistes yu mag yi comme ni ñu koy tuddee artistes yu mag yi donc ak acteurs yi. Mm-hmm. dañuy daje comme ni ñu war a daje donc ci fi ñu daan nekk foofu. Mm-hmm. foofu lañ daan daje ci répétition yi ñu daan ne. ci lañ doon daje ba yàlla dogal ñu ñuy daje ci kaw. ci kaw ci kaw comme ñiy daje nii ngay gis nit naan kii moo nekk fii. Mm-hmm. nga artistes yi dañ lay yéem par exemple ñun ñu nekk xale di rampe. di mm-hmm. dajeeg di dajeeg suñu magu artistes yi ci ñu naan fekk répétition fekk ñu ne ci basan gi di di répété. Mm-hmm. ñu gis leen. di rêvé naan ñi yàlla nañu dem ba mel comme ñoom ñun nekkoon ci basang gi di répété chaque 17 heures la ñuy répété ba 19 di ko def ci ay turub bi turub fii dafa demoon ba ay turub yi matoon na presque 10 bari woon mais donc ñun noonu lañ ñuy daje cees moom amuñu amuñu kii boobu noonu. Mm-hmm. dañuy daje nii ak artistes yëpp ñun ñëpp benn lañu. ñun ñëpp benn ngeen. contrairement ak kon li nit ñi di wax que nekk artistes yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di yéen ci seen biir boog di mooy jubóowoo leen euh, est-ce que loolu tamit am na fii cees waaw ah, man de dunduma loolu moom. parce man moom xam nga comme li ma lay wax rek ci aar laa focus quoi. maanaam moom dama focus ci aar bi li may liggéey nii rek comme par exemple aar rek laay topp. Mm-hmm. waaw man su ma demee ci répété man xawma ku ma bañ xawma kan mu bëgg man ci job bi rek laa nekk. ah bon waaw ma sóoraale yooyu man lan l'essentiel. xamoo ku la bañ xamoo ku bëgg loolu nee loolu yomb la. non man amul problème kenn même ku ma mere sax baal naa ko man du ma mere kenn du ma xuloog kenn. man ku xuloog man ma baal la. Mm-hmm. waaw. waxuloo yow naa ko man bu yàgg. Eh, waaw te ko yëgu ko man loolu newuma ci boobu moom nekkuma ci quoi eh, vraiment dëgg mm-hmm, yàlla. Mm-hmm. ndax ni ma koy dundee rek soo amee loo bëgg doo bari looy gersu donc liggéey bi ñuy liggéey dafa xaw a doy mm-hmm, donc daa laaj concentration eh, concentré wu pour mën a jàng parce que du jeex chaque jour dangay ngay jàng jàng la boo xamante ni du jeex aar dafa nekk géej chaque boo yeewoo am na ci loo war a jàng donc man ci côté boobu rek laa doon nekk donc fu ñu jàngalee théâtre wala lan la ñuy def pour théâtre banam lii ak lii boo ko bëggee def yooyu rek mhm. donc nag du ñàkk yenn saay ay bunduxatal wala buux comme àdduna noonu lay doxee mais mhm. bëgg-bëgg moo ëpp solo sax nit bu la mere wala booy kii nii waaw ku la mere yow yaa koy yëg nii rek mais moom loolu nit mën na koo dindi xam nga aar day toj xol mhm. booy def aar da ngay sa xol day toj day am yu bëri yoo xamante ni nit mënul xaa def nga koy gis ni mais yow doo ko kii daal ah, doo ko sentir mhm. li artiste mën nit simple mënu ko dëgg loolu mhm. wallaay parce que tey yow artiste bi mën nga génn sa kër mhm. am lu la metti nit bi di la bëggee di saafoonteeg yow nga bëggee ak moom saafoonteeg moom te du yëg ni yow am na lu la metti te yow tamit da ngay am lu la metti ah wala day am lu la naqari mais loolu yëpp mën nga ko def ak nit ki te du yëg ni kii am na lu ko bett. ok ah, d'accord moo tax li artiste mën nit simple munu ko. dëgg la mënu loolu. d'accord alors tout à wax nga ko day am ay bundoxataal ak ay affaires yoo xamante ne dañ ci biir. Mm. est-ce que loolu noonu jot ko ko dund ci li nga xamante ni jotagul nga ko traversé ci ci aar bi. waaw aar bi man de man man côté yooyu moom neew ma ci parce que gisuma loolu. quoi mën nga ci bañ a ne mais mën mën nga ko dund. waaw du ñàkk mais comme par exemple looy dund rek da nga koy yëg mais man yëg-yëg boobu laa dul am. quoi ci li nga nekk ah non man yëguma loolu daal vraiment man aar hmm. moom. Hmm. man aar rek laay topp comme booy dañ waxee aar rek laay topp. man ci loolu laa focus donc hmm. mën na nekk mën na nekk mais doo gis loolu. d'accord waaw doo gis loolu quoi. Mhm, mhm. Mm. d'accord parce que yoon la boo xamante ni dafa metti mettiwaay gi nag mooy dëgërlu gi ñu lay wax nii parce que tey boo gisee ñu doon def ay formation répétition. Mm. pour jàngal la ay affaire parce que tey jàng bi. Mhm. comme par exemple dañ lay jàngal nit ci kanamam. bu meree. bu amee lu mu la bëgg a wax. Mhm. bu yooyu yëpp mënoon la ko wan ci kanamu nit ki. nga koy gis léegi nag loolu mooy travail bi nga xamante ni pour soo demee ba yéeg par ab niveau yéeg yooyu noonu yooyu yu bari dootula la tardeel yow. Mhm, mhm. waaw parce que da ngay xam fi nga jëm. d'accord aloo lan nga dund ci théâtre loo xam ni moment bi regretté nga ko ñu la delluwaatu ne la defaat ko doo ko defaat wala kon sax du du demee ni nga xamante ne demee woon na ko. théâtre di ah, loo ci dund ba nga commencé ba léegi wala ba nga commencé ba léegi rek tout est rose lépp a neex lépp a nice waaw théâtre moom amuma ci retour yooyu moom ah vraiment <laughs> waaw ay retour yi yooyu vraiment amuma ko ci moom théâtre moom li ma ci def yëpp ma neex parce que déjà lépp rek mm-hmm. si jàngale laa ko teg si côté laa ko def mm-hmm. donc amul lu ma ciy rek moom mm-hmm. wax dëgg fa yàlla billaahi ci jaar jaar bu metti wala ilaa tey ngay ngay nga war a dem fenn amuloo paas wala nga war a dem fenn ñu signé ak yow nga dem affaire bi demewul na nga ko bëggoon déception yu xaw a ndaw ndaw yooyu mosoo ko ci dund aussi. ah loolu mënul ñàkk loolu. Ah, loolu loolu mënul ñàkk ci. Ah, ñëwal ma si loola <laughs> ñëwal ma si loola. non loolu mënul da ñàkk <laughs> yow loolu xam nga ni mënul ne xam nga tey jii nii li ñuy wax naan booy liggéey ci li nga xamante ni moo nekkee ci liggéey bi nga bëgg. Mm. dèjà lu ci nit wax danga baax na. waaw parce que yaa ko bëgg. Mm-hmm. waaye yombul daal. Mm-hmm. yombul parce que boo xoolee dañ doon soxlaat sax. paas wala nangam comme lu mu mën doon dañ daa dem ay spectacle yoo xamante ne nii. Mhm. maanaam yëre boo sol sax doo ko am spectacle xam nga déjà mhm. bokkul ak répétition répétition dañuy sol tenue bu noir ñëw nekk mhm. mais spectacle guddi parce que yow amoo foo jëlee yére booy sol amoo xaalis bi amoo moyen bi donc yooyu ay jaar-jaar la parce que déjà man nekkoon naa ci ci ci ci ci art bi côté boo xamante ni donc dañ ma doon wax yow lan ngay def fii lan ngay def fii waaw lan ngay def fii quoi. parce que yow mais yow booy spectacle yi yaa koy toj fu ñu dem yaay daaj nit ñi non non non mm-hmm. mais léegi looy def fii. Mm-hmm. côté boobu gënoon na maa sonal ci si bi may nekk. lan moo tax ñu naa looy def fii. waaw da nga fa amul woon xaalis wala lan non donc boobu maanaam spectacle yëpp toj naa ko. d'accord spectacle bu ñu mës a def rek toj naa ko. waaw maanaam émission wala lu mu mën di doon lu ñu dem rek dama koy toj mais donc ku la gis naa non booyee waroo toog fii nii gars yi da war a dem ci kaw da nga war a def nangam. Mhm. waaw te amoo moyen bi te théâtre mooy loo xamante ni dèjà du ëmb day wasin yow. Mhm. yow ni koy dundee maanaam da ngay mën moment bi nga nekk lu wax nga ne ko puusal noonu maa la mën parce que def naa lii def naa ci lii mhm, mais noonu lay doxee di nga gis ku ñu ëpp talent fukki junni ak yoon nekk fi mu nekk du fa du fa jóge waaw mais yàlla moo ci maye nag day mm-hmm. da ci dafa am ay tolluwaay mm-hmm. mais yàlla def ci maye da ngay gis koo xamante ni mm-hmm. day taxalaatu sax mënul mais yàlla day def koo xamante ni talent bi mu am da koy xool ni xam ni kii bu nekkoon fii wala ci biir télé bi nga gis ci koo xam ni palaasam mooy kii moo fa waroon a nekk parce que da xam ni kii may nekkal ni moo gën a neex kii wala moo gën a mën kii mais yàlla mooy maye donc loolu dañ ko doon jànkoonteel ci temps boobu xam nga maanaam doo am mën a am spectacle boo xam doo am paasam wala ñu war a déplacé wu dem foo xamante ni doo yor doo yor parce que tey am na loo xamante ne nii boo boo boo boo boo liyul doo ko am quoi boo liggéeyul wala boo demul fu ñu lay fayee mënoo ko am mhm. te ñun moment boobu noonu kenn mënuñoo fay parce que amuñu maanaam demuñu fenn fu ñu nit di gisee mhm. donc ñu ngi woon ci suuf rek di rampe mhm. d'accord d'accord alors lan lan nga tudde dem ci kaw parce que bu may gis nga koy répété dem ci kaw boo déggee dem ci kaw mooy déjà tey mm, plateau bi ñuy nekk mooy répétition. Mhm. Euh, artistes yu neex yëpp nga fa. mais fay ñu ñu télé. ok maanaam ñoo xam te ni ñoo la gën a neex fukki yoon. Mhm. ñu ngi si basang yi donc foofu ci basang googu dafa metti méttiwaayu basang googu laa lay wax dem ci kaw parce que tey mhm. foofu. talent da ngay répété ba huilé xam ni yow guddi wala takk say bët bu ñu la ko defoon nga def li nga bëgg a def yëpp mm, mm, mm. mais doo am doo am visibilité ah, visibilité xam nga waaw nekk ci production yu mag yooyu ok donc visibilité boobu noonu dala doon manqué parce que tey mm-hmm. mën kese ngay am mais doo mën a génn d'accord doo mën a génn doo mën a dem fenn donc mm-hmm. loolu loolu moo nekkoon affaire bi moo doon jàmbat gi moo gënoon a métti nag parce que mm-hmm. tey fii ñu dëkk ñun rawatina fii nekk xam nga tey fii cees maanaam dëkku théâtre la ñëpp a neex. ñëppay théâtre mhm. donc looloo gënoon a looloo gënoon a tax ma lay wax ni la parce que day am dem ci kaw parce que tey jii am man damay dem ba léegi ci répétition yi dafa fekk ñoo xamante ni. Mhm. man dama leen di bëgg a jox sa sama place. ah bon wallaahi. tax loolu. parce que dañu mën. d'accord dañu mën quoi dañu mën li ñuy def da nga leen di yéene parce que nag ku ci mhm. nekk fi nga nekk bul jàpp ni yow yaa fa teg sa. waaye yàlla moo la fay teg. waaw mm-hmm. ah, parce que man damay dem mais ku ma ci gis loolu laa lay wax dama lay wax ni la jàppale la que man tolloon naa fi nga toll nii. waaw parce que foofu dafa am jàngat dafa am liggéey. donc mm-hmm. mooy répétition yooyu. dafa am jàngat am liggéey boo fa demoon maanaam boo xasee ba dugg ci sa yaram comme ñun ñu koy dundee bu duggee ci sa yaram. dootoo mm-hmm. bu 17 heures boo xasee ba julli ba pare moom doon tàggoo nga kenn dootoo jóge foofu foofu ngay toog. d'accord ko loolu loolu loolu mooy mooy mooy mooy affaire bi. alors Thiès parfois nit ñi dañuy wax surtout sax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, seen mbokk comédien yi que milieu bi dafa xaw a waa dafa danse mm. parfois sax nga interroger nit ki mu ne dañoo teewoon sama voix wala sax dañ ma liggéeyoon mm. wala lu mel noonu mu mel ni mystique bi dafa gën a gën a gën a bëri ci fi nga xamante ni moom moo di ci seen parti est ce que nga ko dund wala nga gis koo xamante ni dund na lu mel noonu waaw am na ci moom mm-hmm. am na ci nag mais xam nga comme li ma lay wax rek nit fu mu nekk rek yóbbu fa boppam mm-hmm. yàlla moo la fa donc man foofu laa ko teg ci lu bëri maanaam lépp foofu laa ko teg parce que tey ñun buuxantewuñu pour feeñ télé mhm. munum buuxantewuñu pour génn ci tele bi wala seen bee loolu defuñu ko mhm. maanaam aar la ñuy dund maanaam aar moo ñuy yóbbu fii moo ñuy indiwaat fii moo ñuy orienté mais donc bu ko nit ñëpp dee dundee noonu pour mhm. man du am du am yi ngay wax nii parce que man boo bàyyiwuma xel loolu sax ci àdduna waaw parce que xam naa ni moom ni ma koy dundee nii. Mm-hmm. parce que loo war a liggéey la boo ko liggéeyee après da ngay dem si leneen parce que tey ñaanuñu yàlla rek. Mm-hmm. peut-être aar bi suñu suñu suñu suñu bëgg-bëgg la boo xamante ni dañ koy def. ñun biñ ci dugg tàgguwuñu kenn. ci mm-hmm. waaw lu ñu bëgg la quoi. di ko def yàlla mu ci dimbali ñu ciy def. ñu ci ñu ci am li ñu wërsëg bi ni yàlla di may. donc waaye basé wuñu ni moom rek la ñuy def tey dañuy am business su nangam nangam moo tax. comme li ngay wax nii day mm. am na ak dëgg la parce que tey Mm, loo loo ni amul fii am na fee waaw loolu loolu moom àdduna àdduna mm, mm, tëddee noonu d'accord mosoo ko dund mosoo xëy a dox wala dara dal la la ko teg <laughs> ne kenn a atteindre sama yaay man moom wax dëgg yàlla mosuma dund yooyu mosoo ko dund d' accord alors mais gis nañu yéen ñi nga xamante ni yéen yéenay comédiens yi mhm. euh, parfois ñu gis koo xamante ni day feebar mhm. nekk ci ay difficulté ñu koy ketal wala sax ñuy ñaan loo xamante ni si dina ko tax mu mu jóg fa mu nekk gis nañu kaawu yaadu gis nañu aussi tamit ki nga xamante ni moom moo di yoro yoro bu ndaw mhm. euh, mu nekk loo xamante ni Sénégal yi yëpp moment boobu noonu ci la ñu doon wax euh, que seen comportement seen seen taxawaayin boog wala ci seen ci seen avenir yu mel noonu dafa mel ni que di ngeen ko ginnaawal boo déggee yu mel noonu lan la lay def waaw du la neex parce que lu ci nekk da nga koy xool ci sa bopp. Mhm. du la neex quoi parce que tey ku sañoon ci àdduna donc comme ni ñuy dundee ci àdduna booy ñaan sax doo ñaanal sa bopp. da ngay ñaan mhm. àdduna bi yëpp am jàmm. waaw ah, ah, dëgg la waaw da ngay ñaanal ñëpp jàmm ci mhm. bu dee ni noonu sax laay doxee man bokk. booy ñaan da ngay ñaanal ñëpp jàmm parce que bu ñëpp amee jàmm rek yow da ngay am jàmm. parce que jàmm ñëpp ci la jàmm ñëpp nekk mais. comme lu mënul ñàkk faaw mu am dèjà da ngay gis loolu lu koy waral nag mooy li ma lay wax nii tey. di nga gis benn nit mu ne la man lii laa bëgg def def maanaam aar laa bëgg a def ah. mu jaral ko mu fexe ba feeñ mais boo demee ba feeñ rek tur dafa doy waar boo amee tur nag mm-hmm. tur kese mën nga ko am mais yàlla xam nga mm-hmm. mën na laa may tur mais sa ginnaaw dara du fa nekk mooy sagu artistes yi dèjà mën nañu am mm-hmm. tur mën nañu am yére bu rafet mën nañu am sax oto mais waaw yàlla dafay def maam po doolee poos bi du demee xaalis maanaam du am xaalis daal du am xaalis. Mhm, mhm. tur bi day jiitu. daa déedéet parce que xam nga rek tey munul munul nekk nga yor xam pay ku sañoon boo feebaree faj sa bopp. dëgg la ku sañoon booy feebar rek di làmb sa poos. Mm-hmm. wax ñaata la ordonnance bi nga jëndal ko sa bopp nangam sangam. Mm-hmm. mais mënut a ñàkk am na ci àdduna ñoo xamante ni bu ñu feebaree faaw ñu ñaanal leen. wala faaw ñu ketal leen bu ñu ko gis ci artistes yi kese am na ñoo xam ne ñu ngi ci kër yi wala ñu ngi feneen mais bu ñu feebaree il faut ñu defal leen noonu. Mm-hmm, mais nag ñun comme boo baaxoo artiste rek dañ ko ciy gis lu bëri rek boo baaxee ñu ne artistes yi. donc mais comme li may wax tey jii nit war naa ñaan yàlla ci li ngay liggéey mm-hmm. nga fexe ba gis ci sa bopp ba lu la mën a arrivé si àdduna rek. Mm-hmm. maanaam nga mën a génn ci sa poos. fajal sa bopp ku mm-hmm. nekk loolu lay ñaan yàlla pour man parce que tey kenn bëggul am soxla di woon nit naan ko dama bëggoon nangam sangam wala nangam man de li ma ciy joxe comme par exemple li may wax sax ñëpp laa koy wax sama mbokk artiste mooy ku ci nekk mooy comme sànq maanaam la gëm-gëm dafa am solo mooy li ngay liggéey fexe di ci liggéey li may liggéey xam naa ne lii yàlla dimbali na ma am naa doom bi dem naa defi nangam dem naa defi nangam ba xam ne lii man téye naa ko nii. Mm-hmm, mm-hmm. waaye boo ma woowee di ma ci liggéeyloo da nga fay loo xamante ni. bu mm-hmm. yàlla defee tey ma am góom sax mën koo jël ko ci faj mën ko ci def quoi. parce que métier bi dafa metti ah nga am tur kese di jaar fii ku ne di la woo ku ne di la ñor di nit ñi di la ñaan xaalis. te du nekk ci yow. waaw dafa metti <laughs> doo yor mën a joxe. déedéet maanaam du ne li ñu lay laaj yow ñoo la koy sax ëppale parce que nekkul ci yaw dëgg di nga am tur. ah ñu naan sa waay ngi ne moo jaar fee moo nekk lii mooy feeñ ci filmu nangam fekk yow sa poos loolu nekku ci. Mm-hmm. donc am na ci série yoo xam ne bu ñu la fayee li ñu la fay boo ci jëndee ñaari costume day jeex. ah bon waaw. doo ci jëndee ñaari costume jeex. day jeex cela dire que duñu duñu la fay daal. waaw wala duñu la fay lu ko jar am day am xam nga tey. Mm-hmm. liggéey bi tey li nga bëgg carrément du la ko fay. Mm-hmm, maanaam ñëw ni lii laa bëgg lii laa proposé ñu fay la loolu amul. Mm-hmm. dèjà nag ñëpp bokkuñu tolluwaay tolluwaay bi bu fekkee ni da xam nga yow bokk li nga yor lu mu doon. Mm-hmm. maanaam moom boo ci nekkee maanaam day am day am tolluwaay ci liggéey bi dafa am tolluwaay booy liggéey da nga naan man lii laay liggéey mm-hmm. donc ñoom du ñu nangu loolu dina la fay leneen mais nag da nga ciy xool sa ginnaaw parce que tey boo amee famille. Ah, am ñu bootu ci yow ñu bëri xam nga tey ñu bëri yaa koy décanté donc ci liggéey bi ngay liggéey moo la ko may. kon il faut nga am noo toogee. dëgg la toogaay boobu mooy mooy. comme il faut que nga am mm, buñ la mm. buñ la ñu fay la loo xamante ni dina ko jar laal mm-hmm. waaw parce que tey image kese dafa doy waar déjà sa image day mm-hmm. ah, fi muy jëm yow eggoo fa mm-hmm. léegi bu fa e boo fa eggul tey jii nii nit ñi foofu rek lañ lay xoole parce que yaa ngi foofu donc cas mi ngi nii moo sol yére bi moo sol dàll yi waaye xamoonu mu ñëwee donc ñu doon invité émission boo xamante ni dañuy dem am benn téer bu ñu solal am benn waaye bu ñu jox ay dàll donc am ko ñu jox paas ñu ñëw def émission bi après nga ni sa yére bi rafet na sa daal yi rafet na mais grand may nangam ki nga koy ñaan amu ko. fekk na lépp dañ ko kaa jox lépp dañ la kaa jox. doy na waar waaw day waar parce que nag bu la yàlla dimbalee nag ba nga am ba nga am. Mm-hmm. ba nga am tey par exemple maison de production bu la fay. Mm-hmm. wala nga nekk ci liggéey bi xam ni parce que tey liggéey liggéey la man damay wax ni liggéey mooy liggéey. bu fekkee ne da ngaa ñëw liggéey da ngay def nii teg ci taabal yu ñu wax nangam nga wax nangam. Mm-hmm. mu jubóog yow après ma liggéeyal la. donc bu ko defee man su ma ñibbee dinaa xam ne damaa liggéey woon Hmm. mais nag art bi dafay am côté yoo xamante ni déjà day am day am ñoo xam dañu naan mën naa feeñ. Hmm. waaw mën naa am image rek. naa hmm. nekk fii naa nekk fii. naa génn ci ci production yu mag yi rek même buñ ma fayut sax baax na. waaw léegi nag loolu après dalay gaañ xam nga lu tax mu lay gaañ mooy dalay yóbbu. te yow demoo. d' accord tur bi day dem foo xam ne tur bi day loolu nag moo doy waar. Hmm, d' accord loolu ñi nga xamante ni dañu jàpp ne que fi foot bi nekk ci yéen ak comédiens yi mooy que euh, seen ñàkk a juboo ak seen ñàkk ànd parce que tey bu yàlla defoon nga am benn mutuelle boo xamante ni si wala sax foo xamante ni bu weer dee di nga fa am loolu fa versé boo leen amee difficulté jël ci dem def ko euh, moom moo doon gën a yomb fan la problème bi nekk ba jubóowoo leen ba loolu noonu mënoo leen ko def. waaw loolu pour man si si si kii la si njiit yi la parce que tey xam nga jiite sax dafa yombul. artistes yi dèjà ni mu demee si jamono jii nii. kenn mënu leen a canaliser kenn mënu leen dajale parce que àdduna bi tey Sénégal njaay gi sax kenn mënu koo dajale. barke alxuraan kenn mënut a dajale Sénégal donc noonu la demee ci artistes yi am na ci ñoo xam ne boo ne leen nañ def lii duñ naan la defuñu loolu. léegi nag loolu dafay dafay doy léegi nag da ngay dem ba yow da ngay xool sa esprit sa xel li nga xamante ni moo dal sa xel nga koy def. Mm-hmm. parce que tey man ma la wax léegi nit bu nekkul artiste nekkul dara sax bu ñëwee dis la soxlaam nga yor ko donc koy jox waaw waxuma laa nag ñun la sa mbokk artiste diw mm-hmm. am na nangam nga yor loolu te doo ko ci def mm-hmm. donc bu dul bu dul artiste muy nit njaay kese sax mu am loolu donc pour man mm-hmm. àdduna noonu lay doxee sax ndax ku ci nekk man pour man ci àdduna bu ñëpp amee jàmm ci la jàmm gën a bari quoi maanaam ñëpp am jàmm mm. mais nag loolu la rek parce que tey jii nii àdduna bi mm-hmm. kenn mënta kenn mënul dajale ñëpp ni leen jaar leen fii mënta ne mënul nekk c'est impossible loolu mën di ko doy waar d'accord am na solo alors li nga xamante ni moom moo di cinéma bi ak maanam àll wàllu acting da cee da cee feeñ mm-hmm. euh, artiste comédien nga waaye tam gis nañu ci li nga xamante ni moom moo di téléfilm yi mm-hmm. euh, boo doon doon wax différence su euh, maanaam acting bi ak li nga xamante ni moom moo di comédien bi lan lay doon ak lan moo gën a nekk fi nga xamante ni moom moo di au pardon comprendre maanaam téléfilm yi nga xamante ni yaa ngi ko joué parce que gis nañu la Marodi gis nañu la aussi fi nga xamante ni moom moo di Evenprod mhm. bokkul ak théâtre sur scène li ngay def foofu foofu téléfilm la ah. fii théâtre sur scène la la différence lan la ak tamit ban moo gën a nekk au top pour yow moment bi waaw pour l'instant moom téléfilm moo gën a nekk au parce que mhm. téléfilm la nit ñi di topp mais mhm. euh, théâtre sur scène moom mooy affaire bi d'accord waaw loolu moom mooy théâtre sax nag wax dëgg fa yàlla. Mhm. scène moom mooy théâtre parce que tey ci la lépp nekk. ñun de li ñu jàng foofu lañ ko jàngee. Mhm. ci sur scène. Mhm. moo ñu may lépp. may nag boo gisee mu donc comme li ma la wax sànq dina la yokkal visibilité. xam nga pour que xam nga li ngay li ngay def nga mun ko wane bu baax a baax. Mhm. parce loolu rek mooy ci téléfilm bi moom mhm. loolu mooy différence bi parce que loolu mooy mooy nag wax dëgg fa yàlla. bu mhm. dëgg dee dëgg rek sur scène mooy théâtre moom. d'accord alors sur scène mooy théâtre mais léegi koo gis dafay bëgg a dem ci téléfilm yi. gis nañu la nga nekk bete bete di ko toj ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni si ci théâtre sur scène la ñu commencé woon lan moo tax valoriser woo leen théâtre sur ngeen dem ci téléfilm yi bëgg a jóg ak moom dem ak moom est que nekku ni da loolu boo leen ko defee dafay daaneel théâtre sur scène wala lan la noonu waaw donc sur scène moom comme par exemple li ma la ci wax rek théâtre la boo xamante ni ñun ci la ñu jàngee yéeg ci la ñu mënee lu ne mhm. moom mooy théâtre wax naa la ko léegi mais téléfilm yi donc maison de yi moo tax maison de production yi ñoo lay contacter ñoo lay woote liggéey liggéey la rek donc mais mhm. fee moom mooy mooy affaire bi mais fii tamit dañ la ciy woo ku am maison de production am ni la damaa bëgg nga liggéeyal ma te yow xam nga jaaykat jëndkat la faral. waaw donc loolu rek mooy affaire bi. jaaykat jëndkat la faral. dafa <laughs> mel ne xaalis bi ngeen ngeen dabu foofu daal. na ngeen dabu tuuti xaalis bi <laughs> ko dabu tuuti nag. Uh-huh. faaw tuuti xaalis bi nag mënul ñàkk quoi. d' accord ngeen dabu tuuti xaalis mënul ñàkk. mënul ñàkk d' accord alors ñu gis la Marodi à euh, un moment donné ñu gis la fi nga xamante ni moom moo di Evenprod. Mm-hmm. Euh, naka nga def ba intégré li nga xamante ni moom moo di maison de produit. waa Even Pro moom donc dañ maa dañ maa contacté woon woo ma. Mhm. Euh, sama benn xarit bi boobu fa nekkoon moom ma woo woon si saison bi ñu doon def muñal. Mhm. loolu moo ma yóbbu woon foofu. d'accord waaw muñal laa demoon. Mhm. bi ma nekkee muñal maa ngi woon muñal ci benn série bu ñu doon def foofu ñu woo ma. dem fa doon tourné ci boutique bi. d'accord bi ma tourné noonu ba pare après ci laa fa. jugewaat nekkaat ci affaire yi rek nekkaat ci sketch yi may def fii nii mhm. comme bu ma nekkee ci ay capsule rek laay def mhm. ci capsule donc mooy yenn yi may def ci yenn seenu gars yi am na yoo xam dañuy am ay scène mais capsule yi day yéegal scène bi mhm. waaw léegi nag ñoom ci lañ ma gisee woon woo ma muñal ma dem foofu nekk fa doon fa jouer ci série boobu maa yoroon boutique bi après bi ma nekkee foofu ma ñëwaat nekkaat ci capsule yi ñuy def série bii nii euh, bete bete ci lañ ma woowaat ma dem ma dem foofu noonu d'accord loolu yaa ngi woon Marodi Marodi non non mosoo mosoo dem Marodi. Eh, pili pili fan la woon Marodi la woon wala. pili pili la. ah d' la woon su ko croyez sax Marodi la d' <laughs> accord. Buzz <laughs> la laxat <laughs> woon ngi koy nuyuwaat. d' accord. mu ngi noonu foofu la woon dérapage. Mhm, dérapage waaye mhm. alors am na solo mu nekk loo xamante ni si lu ñu lu ñu kii la lu ñu rafetlu la li nga xamante ni yaa ngi koy def si ci cinéma bi di ci évoluer macha allah ñu la ci félicité waat bu baax a baax mais tamit si biir loolu dañu gis li nga xamante ni moom moo di euh, maison de production yi parfois dañuy gis koo xamante day génn mhm. mais da attaque directement. lan la leen attaqué gis naa ko barki démb benn actrice mu génn mm. euh, di attaqué maison de production bi nga xamante ni nekkoon na fa mm. comme quoi que dafa amoon nag ñoom contrat mm. euh, ñu ray ko ci film bi contrat bi six mois la woon avant six avant avant kii di jeex six mois yi di jeex rey nañ ko euh, kii bi war a continuer mais continuer ak ñoom ba mu dem ak ñoom ci yoon ñu bëri dañuy dañu jàpp ni que yéen maison de production yi maanaam gëdd bi nga xamante ni acteur bi war na ko am wala sa actrice bi duñu ko ko jox naka gisee lu mel waa dëgg la moom laa la doon wax sànq ma ni la maa nga koy wax si kaaw bi ngay wax euh, mm. ci art ci acteurs yi feebar ñu leen di ñaanal. Mm-hmm. donc loolu laa lay wax man la li ngay bëgg carrément kenn du la ko fay. Mm-hmm. mais donc da lay fay li li li nga li nga méngool rek maanaam li nga li li nga méngool wala lu tane ngay jël pour dem mais bu ñu la doon fay lu normal pour man ci àdduna kenn kenn du ñaan kenn du def leen parce que tey jii nii. Mm-hmm. donc tey say proposition nga yor ci lii laa bëgg moom mu ne la lii laa mën. donc su ngeen jubóowul rek du ngeen liggéey. donc boo xasee bu jubóog maison de production bu mu mën di doon ci li ngeen juboo ci loolu nga mën a ci loolu nga mën a liggéey ak moom. Mhm. donc loolu laa doon wax sànq maanaam liggéey bi maanaam fay bi du demee noonu du demee comme ni mu war a demee parce que tey li nga proposé kenn du la ko fay. Mhm. donc léegi nag boo amul. da ngay gis ni tey yow li nga bañ sax nit mun na ñëw jël ko. nangu ko mais bu ko nangoo tamit ci li koy gaañ lay doon. parce que tey mhm. loolu loo xamante ni mënoo ci mënoo ci gani maanaam mënu laa mënu laa defal daal parce que tey mhm. pour man ci àdduna nit ku ne lu muy liggéey war na ci gis boppam wala war na ci yëg boppam mhm. donc loolu loolu moom man pour bu ma koy wax damay wax ni nit ku nekk rek sa nitu bopp nga ci ci liggéey bi mhm. soo demee fi ngay liggéeyee donc yow yaay wax li ngay jaar li ngay jaay yaa koy wax. ñoom bu bu fekkee jarul la tamit da dem parce que tey comme tey am na ñoo xamante ne amuñu jaaruñu fi ñu jaar ci li nga xamante ni mooy métier bi. mooy donc mm-hmm. dañ ko dund. Mm-hmm. tarbiyu ko xam li ñu yor lan la. pour ba lañ ñu lay wax nangam dama naan lii yow yaa bëgg. Mm-hmm. lii laa la koy jaayee nga d'accord mm, ma jox la. soo d'accordul ñu dem ci leneen parce que tey loolu dañ koy dund bis bu ne buñ tourné fee. ñu ngi koy dund buñ tourné wul ñu ngi koy dund. Mm-hmm. waaw léegi nag tolluwaay yi du bokk day am ñoo xamante ni. Mm-hmm. ñoom donc comme li ma la wax sànq dañ fay dem pour juste mm-hmm. man maay diw dama bëgg a feeñ nangam pour am opportunité def nangam wala nangam. mais ñun man bokk ci sama ci sama bopp man xam naa li ma yor. mais xam naa ñaata laa koy jaayee. donc du ko asaaloo saa yi su ma toogee fii. maa ngi ci su ma nekkee si télévision yi maa ngi ci. Mm-hmm. Ah. d' accord mm-hmm. li nga xamante ni ñu bëri dañu koy wax que mooy euh, maanaam aar bi fayul ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci liggéey. Mm-hmm. comme ci nga nekk loolu danga koy dëggal wala parce que tamit li ma wax nii tey. mooy kaaw actrice boobu noonu dafay firndeel lu mel noonu. est ce que lu mel noonu yaa ngi koy dund carrément. waaw dëgg la fayul aar bi fayul Sénégal loolu loolu moom biti la waral. aar bi moo fayul Sénégal. Mm. non non non. d' aar bi fayul Sénégal parce que tey jii ñun li ñuy liggéey boo xoolee li ci ëpp. Euh, maanaam lu ci ëpp nit ñi ñoo lay ñoo lay ñooy am nit moo ci am mooy bëgg am lu mu la may. Mm-hmm. wala nit mooy bëgg am lu mu yëkkati ni la lii maa la ko joxal ngir nangam bi nga def nangam mais pour fayeeku ci maison de production parce que ñoom tamit. Mm-hmm. dañuy taaba taaba maison de production yi ñoom it dañuy taaba taaba comme ñun. parce que mm-hmm. déjà dinañ bëgg yow da ngay bëgg te ñun ak ñoom benn nañ déjà dañuy am lu ñu bëgg nii nga xaajoo kook ñoom si digg bi pour ngeen mën a def. donc loolu lay doon mais comme fay moom bi nga ma bi ciy wax ni amu ci. amu ci non mhm. fan la fay bi nekk ba loolu war a. waaw boo xoolee xam nga tey ku sañoon li nga bëgg loolu ngay am. Mhm. ku sañoon ci àdduna li nga bëgg loolu lay am. parce que tey man lii maa ngi koy jaayee nangam bu ma ñëwee nga ne ma wàññil ma ko donc. noonu la àdduna bi doxee. nga wàññi wàññi <laughs> mais warul am li nga bëgg dèjà day gën a day day. day gën a ah, day a critique day. Mhm, <laughs> mhm. léegi nag loolu la àdduna di doxee parce que tey jaaykat boo gis boo ne ko lii lii lay jar ngay dégg jëndkat bi ne non wàññil ma. Mhm. loolu ci Sénégal la nekk. donc est-ce que bi nga nekk yaa ngi fa gis sa bopp maanaam pay fay bi mi ngi demee noonu. wala ñu ngi lay deseel wala problème am na seen diggante wala genre parce que ñu bëri nag dañuy dañuy dañuy gis ni dañuy def cri de cœur taxaw di wax. Mm-hmm. peut-être am na ñoo xamante ne si am amuñu maanaam. Mm-hmm. Euh, dañu am bëri sutura ba du ñu taxaw wax. Mm-hmm. mais du ñàkk di ngeen ko dund wala yu mel noonu est-ce que Evenprod yaa ngi dund yu mel noonu foofu. non non foofu moom dund ma fa loolu Evenprod moom wax dëgg fa yàlla mention spéciale dañuy liggéey donc ci liggéey bu bu bu jaar yoon. la ñuy liggéey mosuñu ma amel dara. Mm-hmm. donc man it mosuma leen amel daara wax dëgg fa yàlla liggéey bu rafet la ñuy liggéey. ñooñu moom mosuma am ak ñoom yooyu wax dëgg fa mm-hmm. yàlla. Mm-hmm. loolu moom mosuma ko sax dund ci ay ay lii ne. parce que comme li ma la wax rek nit moom. boo xamee li ngay jaay. maanaam ci gàttal doo ko wanteer. boo ñëwee nit ki bëgg nga wax ko lii parce que tey am na ñu bëri ñu ngi dund aar mais dañuy wanteer seen bopp. wanteer seen bopp waaw te nit wanteer sa bopp. maanaam tey nit ci buy dund aar wala mu nekk acteur. maanaam li mu am mooy image am. wala bu dee ci image mooy kanam gi mu am. Mm-hmm. wala maanaam làmmañam mooy ci gémmiñ gi muy waxee maanaam ton bi mu ciy waxee loolu soo ko mayee wala nga wanteer ko rek donc day jeex. parce que tey mm-hmm. àdduna bi ñun ci image rek la ñuy dox. donc mën nañu mayee suñu image ci nangam ak nangam waaye tamit dañuy jaay suñu image. parce que mm-hmm. tey loolu moo ñuy may li ñu bëgg. dëgg la dëgg la. d' accord nga nekk ci bete bete maanaam di fa def lu am solo macha allah Sénégal yëpp bëgg la ci avant ñuy xuus ci rôle bi naka gisee série bi. waaw bete bete moom. bete bete àdduna la. <laughs> bete bete moom ah, <laughs> ah. yaakaar naa foo génn ci réew mi wala foo dem bete bete lañ lay wax pour l'instant nii ñëpp dañu ne noonu kenn waru di def ay première saison yéen war mm-hmm, mm-hmm. koo gis deuxième saison bi kañ la loolu la wax koo dajeeg yow ni la mi yow kañ la deuxième saison mm-hmm. filmu àdduna bi la parce que ñëpp ko bëgg ñëpp koy suivre. donc euh, film la boo xamante ni maanaam. ma nga ca kaw daal. ma nga ca kaw ma nga ca kaw waaw. Mm, d'accord mais dañu gis ni fin bi da ngeen ko baakale jël lépp sotti ko ci benn jour bi. lu waral lu ngeen ngeen baakale affaire yi noonu. waaw parce que xam nga maanaam du baakale sax mais boo xoolee film bi. Mm. donc dafa am dafa am deuxième saison donc am na ci ñu bëri chaque jour parce que tey Sénégal mooy théâtre théâtre bu chaque jour da ngay gis nit bu commentaire lu juste wala lu ndróog lii wala lu nangam parce que tey léegi théâtre sénégalais yi ñoo gën a xam. Mm. Even Pro yàlla dimbali na leen ba ñu doon suspend Sénégal yëpp. ku ci nekk boo yaakaar ne fii lay jaar. ñu aw fee te loolu moo manqué ci ci téléfilm. donc hmm. da ngay dawal benn affaire ñun la lii de xam naa ne fii la jëm. wala fee la jëm donc suspense bi ñu def moo waraloon comme ñu ngi woon jëm ci parce que tey bété euh, bété ba mu commencé ba ñu commencé tourner yàgg na. Hmm, hmm, donc bi ñu commencé avant corps ñu ngi doon tourné ba ni ñu wooree ba ni ñu tëbaskee donc nit ñi di daw nag dañu dem ba huilé ci film bi bëgg hmm. mais ñun ñooy def première saison pour def deuxième te incha allah ñu ngi ñëw ak deuxième saison ah donc loolu moo waral ñu wan gars yi lii di xew ak lii ñëpp nag ñu ngi laaj sumbulu nii sumbulu nii mais loolu moom baax <laughs> commentaire yi ci réew mi ku ne naan ko teg métti na de li ngeen ko teg dis na loolu baax na léegi nag après <laughs> <laughs> ñu ñëwaat ak yéen rek hmm. parce que béta béta loolu la quoi ñëpp ngi ñëpp a ngi laaj mais incha allah ñu ngi ñëw. Mhm. ñu ngi d'accord alors comme ni ko Sénégal yëpp bëggee ñu gis ni que dafa am sens trop mhm. bokk na ci li nga xamante ne moo di thèmes yi yi ngeen ci bokk na ci kii géer la kii géwél la du ma moom wala mhm. genre. Euh, mu nekk loo xamante ne si quotidien wu Sénégalais yëpp la. Euh, parce que même boo ko dund tamit di nga gis ko ko dund wala sax koñ bi nga nekk am ko ko fi dund. esprit boobu Sénégalais am ba tax na tey ngeen teg ko sur table. lan nga ci wax. waaw xam nga tey. Euh, li Sénégal di dund loolu lañ leen andil. Mhm. maam début bi sax neexul woon parce am na ñoo xam ne duñu bëgg nga laal dëgg-dëgg yi góom dëgg-dëgg yi dañu dem ba xam nga début film bi amoon na coow ay coow lu warul waxee nii mhm. waaw parce que xam nga lu taxoon loolu donc film bi bànn annonce bi dañ ko génnee mhm. ñu dagg ci boo seetaanee loolu ba léegi ñëpp naan a jeex mhm, nga xam ni te ak coow yi mu ni liggéey rek moo am solo dëgg la waaw parce la quoi moo waral loolu parce tey soo laalee laale sénégalais yi ci seen i xol laal leen li nga xam te ni moom la ñuy dund ñëpp mhm. yëgandoo ko ñëpp dem ba bokk maanaam dañ leen a fekk ci seeni i coin xëcc leen ba ñu bokk waaw ci biir film bi léegi ñëpp bokk da ngay dajeek nit mun la man grand lii dund naa ko mhm. man gis nga pourtant lii ak lii lii am na ci man nga xam ni kon sénégalais yi ñu ngi bokk ci film bi mhm. donc loolu moo waral sensu bété bété parce que dañoo laal ci yenn point yi nga xamante ni nit dañu ko doon romb loolu d' accord alors est dund nga lu mel noonu tey nga bëgg nit ñun la kii géer géwél la wala kii géer la genre. non <laughs> man bàyyi xale laa nga nekk bàyyi si li nga si li nekk te nga wax fii nga naan xale la. waaw xale la. ay xale xale bi nga dund amoo benn xale boo bëgg si biir xale bi nga nekk. Eh, eh, <laughs> <laughs> xam naa ne xale nga. bilaa léegi xale yi ñooy bëggante du dëgg. ah man de sañu bëggante sañoo bëggante sañu bëggante. def waaye sañu maa bëggante. ba hmm. si kanam <laughs> lan ngay góorgóorlu si. ba si kanam. mais sa yaay bëgg na kii bëgg na nga am soxna mu nekk goro mu am sët wala genre. sama yaay ah, sa goro. surtout maanaam sa kii ah, <laughs> sa soxna la bëgg sa ngoro ah. boo ko andil. ko mais xale la. Hmm. a andi ko goro. mais xale ñooy takk jabar cas de. baal nañu man damaa jëli élan moom jëli naa élan de. élan mooy lan foo jëlee ji élan bi. arrière. lu tax. duma arrière ba xool fu may xajji bal bi. waxee kaj xool a <laughs> <laughs> <laughs> gëmmu dóor eh. mm. xool di xool waaw ah yàlla na nga gaaw gis boobu waaw war a gis de ah, ma de mm. mm. ko dund daal affaire yooyu noonu trahison wala genre xam man nag moom. Mhm. tuyuma affaire yi. dundoo affaire mhm. <laughs> ñu gis la ci ci biir bete bete ñoom macha allah jour bi neex na trop daam nekk koo xamante ni si eh, bu génnee rek ñëpp yàkkamti talent boobu ak li nga xamante ni moom moo di li ngay dégager eh, lan la exactement. waaw loolu moom rôle bi comme par exemple li ma lay wax rek bi rôle la boo xamante ni mhm. maanaam lu ma si yokk ay affaire daal lu ma si yokk ay ay ay ay saf safal ay saf safal waaw ay affaire la <laughs> pour mu gën a saf pour mu gën a saf <laughs> mais loolu la boo xamante ni vraiment dafa dem ba daf maa neex parce que ni ma ko doon dundee mhm. donc mën nañ la jox benn rôle xam nga nga mm. toll fi rôle bi toll mais soo ci defee li nga ci war a def donc day day day romb lool mm-hmm, waaw mm-hmm. ah, parce que daam ci bunt bi la mm-hmm. euh, daam si piscine bi la daam si oto bi la mais bu demee ba ci salle bi kon mu ngi amul yére di yokk ay affaire mooy loolu <laughs> ak daam ak bu jigéen man dama <laughs> bëgg xam nga xamul madame bu jigéen mooy lan ba xam ba xam madame bu dafa am wala dara man bëgg naa comprendre madame bu jigéen gaa laa doon leeral gaa yi bu jigéen mooy ko jigéen waaw loolu laa doon jàngal Sénégal yi. nekk sama sama xarit moom madame madame bu góor la mënoon muñ muy xalifatin. borom borom boor doo xalifa loolu la mënul muñ moom. waaw waaw madame madame bu góor nee nee na mu wërale ko gaa gaa yi la xool fu nekk. il faut ma xoolal leen gars yi. <laughs> il faut ma leen gars yi. non mi ngi noonu lu lu day la parce que rôle bi dafa am ay affaires yoo ci yokk pour mu xaw xam nga. Mhm. parce que fi mu nekkee moo tax. parce tey boo xoolee bete bete mm, dafa yéeg yéeg bi mooy. séquence yi. fu ñu tourné rek da nga naan foofoo gën a neex fu ñu nekk foofoo gën a neex. Mm-hmm. léegi nag man fi ma nekkoon. Mm-hmm. donc yooyu rek laa ci mënoon def pour que xam nga ñi mën a. marqué la waaw pour mm-hmm. yi gis ni diw moo nekk nangam sangam. d'accord mais rôle bi da cee bokk loo xamante ne si lu am am solo la daam ci porte bi nga nekk mais lu nekk yaa ngi koy lijjanti euh, voilà euh, bu bu ñu la waxee demal xoolal ma nga xool ñëw nettali. loolu ku ne xam na ne nekkul wàllu koo xamante ni si ku ne ci porte la da war a noppi da nga war a maanaam am li nga xamante ni moom moo di bàmmeelu biir mais daam bu demee lu mu gis ñëw nit di ko madame bu jigéen coow bëri ñi nga xamante ni ñi ngi ci porte yi te mel noonu loolu leen di wax rôle boobu tamit doy na wax waaw waaw ñu ne si porte yi tamit noonu la wax bu ñu nettali mhm. bu ñu wax dara lu ñu gis ñu noppi d'accord yaa dégg bañ a nettal leen ndax man li tax ma doon nettali mooy madame jigéen dama koo bëgg sama xaalis dama koo bëgg loolu moo tax ma ko <laughs> ñoom bu ñu bëggee seen madame jigéen nag <laughs> mais bu ñu ko def de <laughs> bu ñu ko nettali nañ noppi eh. bu ñu yóbbu ay saak Mm-hmm. nañ réglé rek nañ <laughs> noppi rek. <laughs> d'accord jarul wax. Mm-hmm. d'accord alors alors daam li nga xamante ni moom moo di changement de voix yi parfois daam li ngay def sa voix bi mm-hmm. doo ci am benn complication wala nan la nan la nan la demee noonu <laughs> waaw loolu moom loolu maam wax dëgg fa yàlla ci ci ci affaire bi la bokk ci formation bi la bokk d'accord waaw donc lu yomb lay doon ni muy ñëwee ni mu koy bàyyee xam nga mooy loolu waaw loolu loolu loolu ci métier bi la bokk quoi doo sonn tamit. dé déedéet déedéet. déedéet doo sonn. mën naa wax ak yow ba kër nga ñibbi. wallaahi. trompeel problème. déedéet. c'est vrai. wallaahi. d'accord alors am na solo macha allah mais daam fan yi nag li nga xamante ni moom moo di li ñuy dund ñun Sénégal yëpp ko ne xam na ko. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne naqar la ak tiis waaye tamit méttit la ci ñun ñëpp ñu nekk Sénégal. Mm-hmm. ginnaaw bi nga xamante ni Dabala ak Aziz mi nga xamante ni Aziz dabalaa du moins mi nga xamante ni moo waali. Mm-hmm. Euh, fekk nañ leen foofu te teg na pour rey reen rey bu ñaaw euh, en tant que koo xamante ni sénégalais nga bi nga déggee loolu noonu nan la la def. waaw loolu tamit wax dëgg yàlla bi ma ko déggee dama ko dund comme sénégalais mhm. yëpp ñu ko dundee noonu laa ko dundee wax dëgg fa yàlla parce que tey ah. am na ci loo mhm. xamante ni moom lépp rek boo ko nattee ci sa bopp rek da xam ni ah, waaw waaw du metti quoi mhm. parce que ku ci nekk rek da koy xool ci sa bopp mu ni ko sénégalais yi dundee donc noonu laa ko dundee muy ñaan ci àdduna bi xam nga sécurité bi Mm-hmm. ñu gën a taxawaat ci loolu rek parce que tey ku ci nekk tey. Mm-hmm. boo xoolee ni euh, Aziz boobu am na am na am na famille. Mm-hmm. keneen ki tamit am na famille. donc noonu lay parce que lu rek da nga koy xool ci sa bopp. wax dëgg yàlla bi ko Sénégalais yi dundee rek noonu laa ko dundee. wax dëgg fa yàlla. d'accord alors ñu gis ni que même bu dul Aziz Dabala sax avant moom gis nañu ñoo xamante ni si rey nañu leen rey bu ñaaw xëy na peut-être dafa nekk koo xamante ni Sénégalais yëpp ñoo ko bàyyi xel ba deewam am di nga xamante ni moom moo di empleur bi nga xam ne am na ko. mais rey yi bëri na. Mhm. Euh, bu ñu demee ba toll foo xamante ne si ray nit comme ray muus lañu ko yemale. Euh, affaire bi duna doy waar naka nga jàngate loolu ci dëkk bu mel ni Sénégal. waaw loolu moom vraiment lu yéeme la lu yéeme la ci Sénégal Sénégal mhm. moom amul amul image boobu Sénégal mhm. amul affice boobu donc loolu moom. Mm-hmm. dañ koy dañ koy lancé waat ñi nga xamante ni ñoo ne ci kaw rek. Mm-hmm. waaw di leen wax ni ñi ñaan sécurité bu doy ci biir réew mi. parce que yooyu tamit wax dëgg fa yàlla du du image Sénégal daal. Mm-hmm. waaw loolu moom ñu ngi ñaan yàlla mu saafara ko. xam nga parce que Sénégal baaxoowul loolu. dëgg la dëgg la d'accord alors xamoon nga Dabala. laa euh, noonu xamoo ko nii rek laa ko xamee. dégg naa sa xarit la woon nii laa ko xamee wax dëgg naa yéen daan ànd. nee gis nii mais wax dëgg fa yàlla comme àdduna moom. daanaka ñëpp ay mbokk lañu. dëgg parce que bu nekkee nit nga rek. Mm-hmm. ku ci nekk rek da xam ni nit ci nit rek la jóge mm-hmm. donc looloo loolu loolu noonu laa ko laa ko laa ko dundee noonu laa ko xamee mm-hmm. dëgg yàlla d'accord alors en tant que koo xam ne sénégalais nga mais tamit porteur de nga euh, nga gis Aziz Dabala génn àdduna ñu teg ci ay fan nit ñi di jël ay baat yu ñaaw di ko ko baatal di ko teg ci kawam euh, nga baal ma sax entre guillemets ci moo bi ay wàllu ngóor jigéen la woon moo tax ñu def ko lii ak yu mel noonu boo déggee loolu nan la la doon def waaw xam nga àdduna moom comme par exemple li ma lay wax rek maanaam nit mm-hmm. maanaam loo yéene sa bopp moom ngay yéene sa morom sa morom ci loolu la àdduna di doxe mm-hmm. mooy ñaan yàlla maanaam xam nga yàlla rek moo xam nit ku ci nekk da ngay ñaanal sa bopp mm-hmm, da ngay ñaanal sa moroom li ngay ñaanal sa bopp waaw loolu mooy àdduna maanaam loolu mooy àdduna da ñaanal sa morom li nga li nga yéene sa bopp moo koy ñaan mhm. waaw man moom ci côté yooyu moom du ma ci du ma ci sori parce que tey comme li ma wax rek mhm. boo amee dëgg-dëgg gëm yàlla mhm. nit ku mu mën di doon bu faatoo li la ci war mooy ñaanal ko dëgg la waaw comme ni ngay ñaanalee ñëpp parce que ku yàlla dimbali foo demee tey da dem ci armeel sax da ñaanal ñoo xam ak ñoo xam donc noonu lañ koy dundee parce que ñun ay jullit lañu donc di leen ñaanal yàlla yërëm leen xam loo a ci àdduna ku ci mm-hmm. nekk am nga paan boo xam xamante ni yow yaa ko war a xoolal sa bopp waaw mm-hmm. donc boo xamee ne yow mi am nga sa bas mm-hmm. donc pour man na nga war a concentré wu ci comme ni ñu ko xamee day yàq nit ba yàq nit bu bokk na ci loolu yàq la ko ñu bëri jàppe est-ce que jàpp nga nit ki dee war nañu mën a wax ci moom lu ñaaw ba ko yàq waaw loolu moom du àdduna pour man comme li ma la wax nii loolu du àdduna comme tey maanaam li ma la wax léegi nit ku ci nekk maanaam boo sëggee ci sa téere di jàng donc pour man kii sëgg ci basam ku ne boo amee sa bas rek war ngaa liir sa bas ba xamante ni doo tal basu jàmm parce que man de noonu laa koy dundee ci àdduna maanaam jéemumaa lijjanti kenn jéemumaa xool kenn maanaam jàmm daal laa mën a sekk ku mu mën doon waaw bu jàmm ji jeexee ma delluwaat ci fi ma nekkoon loolu daal moom àdduna noonu lay doxee sax. d'accord waaw alors bokk na ci li gën a garaaw te gën a sax bett nit ñi. Mm-hmm. mooy que ki nga xamante ni nee nañu suspect la taqal nañu ko bokk ci li nga xamante ni moom moo di dee bi muy Nabou Leye Euh, nekk koo xamante ni ku jige woon Aziz Dabala la mm-hmm. euh, bi nga déggee mbir mi euh, nan la la def bett na la wala bettu la. waaw ah, man nag wax dëgg yàlla comme par exemple li may laaj nii si côté yooyu noonu man man du ma suivre affaire yi mais <laughs> vraiment man moom wax dëgg yàlla. <laughs> nekkoo ci dëkk bi maanaam du ma suivre yi man ci ni may gisee nii man yooyu bari du ma ko du ci. Mm-hmm, mm-hmm. focaliser wu ma ci quoi. parce que boo boo boo occupé yu baree bëri doo ci nekk yooyu moom daanaka ci li xew li ci ëpp wala information yi. Mhm. Oh, ni nga koy déggee nii rek nit wax lii nit wax lii mais man dama nekk nit koo xam ne yàlla dafa maa dimbali dama maandu lu ma xamul xaw ma ko. Mhm, mhm. wax dëgg fa yàlla. d'accord mm-hmm. alors gis ñenn ci Sénégal yi dañu jàpp ni que nee nañu xarit amatut parce que diggante Nabou ak ki nga xamante ni moom moo di Aziz mm-hmm. ni mu demee gis nañu ko di euh, diñ ko ci taqal tamit gis nañu ko mm-hmm. est-ce que loolu war na tax ñuy bëgg ni que xarit amatut ba tax ku ne sax di di wu ci sa xarit ak yu mel noonu lu mel noonu naka la lay def. waaw tey déjà dañuy wax ni ci àdduna da ngay gis maanaam. seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel wax yooyu ñoo koy andi mais mm-hmm. déjà pour man ci àdduna nit moom si mm-hmm. li ngay gis moom ngay xool ba gisatoo ko rek mm-hmm. maanaam ci gis-gis bi nga am da ngay xool ba gis ni gisatoo loolu la nga door a mën a def leen parce que man tey nit suñ nee ma nangam la wala nangam la sax du ma ko ko wax damay ànd ak moom ba keroog moo koy gis man noonu laay dundee noonu laay jàppee doomu aadama waaw est-ce que mos nañ la trahir ci amitié maanaam sa xarit ak genre yooyu non man amuma xarit sama xarit bëgg lee kee laa am benn nit mais man du ma dem fenn gis nga fi ngeen ma fekk nii. Eh. man du ma dem fenn man du ma dem fenn amuma xarit. doo dem fenn déedéet. Mhm, d'accord rek mooy sama xarit moom laa. sa xarit waaw mais. la yàlla booleel comme ni nga ko waxee. ma dem fenn <laughs> jëmukaay. kii rek la la muy sa xarit muy sama xarit <laughs> mi ngi doon. d'accord. dèjà moom moom du ma génn man ñàkk a génn gi moo ma dimbali parce que mhm. bariwuma fréquentation comme di dem fii dem mhm, fii mhm. bu dul liggéey daal du ma dem fenn d' accord alors après deewu Aziz Dabala ñu bari dañoo jàpp ni que peine de war nañu ko andiwaat ñenn ci Sénégalais yi pardon koo tàllal micro dafay wax ni que nañu andiwaat peine de ku rey ñu rey la est ce que d' accord nga ci peine de waaw xam nga tey rey nit tey ko taxaw ni jodd ne loolu moom maanaam neexul si xol quoi maanaam rey nit tay ko nii taxaw. Hmm. noo ku rey nit tay ko doon ko war a rey. waaw nga rey nit tay ko nii ni jot ak say nopp. Hmm. noonu lan laa war a rey. lan waaw. Hmm. mais xam nga ci àdduna day am àdduna day am accident nga gis ne lii nii lii la xewee lii la xewee donc loolu mun nañ ko nangu mais nga yor sa paak. jam nit taxaw ni jodd naan maa ko jam. mais lan laa war a jam taal la. dëgg la loolu mooy yoon. parce que àdduna bi tey day toll foo xamante ni maanaam buñ fekkee ni dañ ñëwaat ji dafa ñëw di la jam si sa paaka nga ni non naa xaar ba police ñëw. da ngay am problème. Mm-hmm. bu la naree jam da nga koy jam balaa police ñëw di expliquer. parce que mm-hmm. mu rey la ba pare ñu taxaw naan non xaar police ñëw loolu day doy waar. day doy waar loolu mooy légitime défense. ah mais dafa doy waar <laughs> mais tamit. Mm-hmm. xam nga. mais tax loolu noonu ci nit koo xamante ni daa rey nit ci coobareem taxaw ni jotul. a ñu ko war a taal. taal ak pono taal ko ba mu tàkk. comme waa Thiès ni ñuy def. non loolu Thiès faaw nu waxtaan ci sax parce que tey am am nga tey nit ku ne nit la ne ku la romb mbéj la sax xam nga mbéj sax dafa metti ah, mais ah, fekk ah. doomu aadama boo jotewul ak moom dara. Mhm. ray ko après taxaw ne léegi ñu lay xool. Hmm. dana waar de dafa day waar. metti na trop kay. Hmm, hmm. loolu loolu mais ku ray ñu ray la est-ce que Sénégal fii dina fi yomb. boo rayee ak loi yeeg règlement yi. non déggoo li ma la wax de boo rayee nit ta tay ko lu leer laa lay wax li olof. boo rayee nit ta tay ko. dan laa war a rey. dëgg la waaw <laughs> loolu kay maam olof yu leer naa ñu la. rey ko waaw. Hmm. rey nit te tay ko taxaw ni jot ray nit tay ko. Hmm, hmm. non dan laa war a rey. dëgg la waaw. loolu moom wax dëgg fa yàlla xam nga tey jii tamit. déggoo man la mbéj képp buñ la ko defee fekk la tooñoo ko dana mu mbéj la fuuf hmm. nit ñëpp la ñuy daw ñoo <laughs> mais boo fayiwul da ngay am problème parce que mbéj bi doo ko ñibbiwaale uh-huh, uh-huh. mais yow tamit nit koo xamante ni jotewul ak yow dara mi ngi si yoonam di dox uh-huh, ah nga jël dara dóor ko ko wala nga ray ko nii ni jootu taxaw ñu lay xool ñu lay xool xam nga loolu tamit neexul waaw ah, loolu dafa d'accord alors bokk na ci ñi nga xamante ne dañ leen a maanaam am kii am xel yaar ci ñoo def wala defuñu muy Fallou Diop comme ni ñu ko waxee gis ni papaam moo ko livré police Mm. yóbbu ko ba police jox leen ne leen ki nga xamante ni moo sama doom ci la bokk mm. acte boobu papaam def noo ko jàngate ah loolu yaa ma ko wax man xaw ma <laughs> lii sax yaa ma ko wax génn <laughs> ci li nga nekk lépp nga xam amul leen loo xamul fii lii yaa ma mm. li may gisee nii man jànguma français Mm. waaw lu bëri ci ay. affaire lu jàng français Sénégal lam daa bi ñu jàng ñu jàngu ñëpp ñu ngi xam ne ah, affaire man ni man lu ma gëstu ay information de ni may gisee nii. information xanaa dëpp ko ci bi bari noonu kii ma ko. man mais mais acte ko jàngatee le fait que mu yóbbu doomam. police maanaam papa ji da koo jël yóbbu ko ni ni leen kii ci la bokk. papa moo jël doom ji. yóbbu ko ah, de waaw lu de comme que moom liggéey la rek xam nga tey comme li ma la wax nii. Mm-hmm. àdduna daa doy waar mais comme papaam bi ko ko jur moo ko jàpp yóbbu ko fa ah papa ji tamit ku baax la li mu def baax na de. Hmm. day jombal day yombalal waa police seen liggéey waaw seen liggéey rek. Hmm. waaw mais xam nga tamit dëgg-dëggal bi ak ndës ndësal bi loolu papaam ku baax la maa ngi koy ñaanal bu baax a baax. d'accord ku baax xaw ma ko. Hmm, ci écran yi nii rek. télé bi da ko xam. d'accord alors nga koy ñaanal ndax difficulté yi metti na. ak Aziz aussi lan nga koy ñaanal peut-être moom dem na tëdd kenn xamu ci lan la nekk mais ñii tamit ña nga ca police ba mu gën a metti ci ñoom lan nga di leen ñaanal ak bon message ngay sànni. waaw maa ngi leen di ñaanal maanaam maa ngi ñaanal ñi dem yàlla sama boroom jéggal leen xam nga. Mhm. ñi des ci fii tamit yàlla na yàlla teqali leen ba leeral seen yoon rek ñu delluwaat seen activité mhm. parce que comme fii ñu leen yóbbu nii lijjanti moo fa am maanaam comme leeral. leeral ñu bañ mu leer yàlla na yàlla leeralal leen. Mhm, waaw loolu leen di ñaanal loolu. d'accord la tàggaloo mbokk internet Dakar Plus ci des waaw maa ngi nuyu waa réew mi yëpp. Euh, mm-hmm. di kontaan ci ñi nga xamante ni mooy suma fans yi nga xamante ni ñu ngi may message. Mm-hmm. donc di ma bind di apprécier samay yëf donc sax bu ma defee interview dinaa leen nuyu. Mm-hmm, di leen ñaanal jàmm di ko sa micro mu ñëw ci yow. ci yéen di ñaanal réew mi yëpp jàmm. di ñaan yàlla na jàmm bari ci Sénégal. amiin amiin d'accord alors Thiès lay gërëmaat bu baax a baax euh, di la sant si disponibilité bi.